dal leen ak jàmm yéenekaay yu bari xëyandoo tey assemblée nationale Walf Quotidien gis ne bile pencum ndaw réew mi mun naa yëngu gannaaw yéene gi njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye am ngir tas lii di au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique et social et environnemental te ñii di ay député fare ci ku jëkk bi te doon majorité ci assemblée nationale nee nañu déet duñ ca dal ne ànduñu benn yoon ci ñu tas yile kuréel bu ñu sukkandikoo ci Abdou Mbow mi jiite groupe parlementaire Benno daal di fàttali ne tey premier ministre Ousmane Sonko ngi nii lank la def ne du amal déclaration de politique générale am di Cheikh Omar Sy di laajte ana ban règlement intérieur bu assemblée moo mun a dajale député yi ay kàddoom ci Walf Quotidien Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp les jàmbaar xam ne nguur gi fi ne dafa jaawaatale priorité yi maanaam xamuñu seen wareef ci jamono joo xamante ne a jàmp ci réew mi mbënn maa ngi tàmbalee nuyoo si koom-koom gi demeetul noonu askan waa ngi daj lu méttee métti accident yi ne xas ci réew mi faat bakkan gaa ngi ni bëri Bougane Diomaye Faye jaay doole la ci wone warutoon a jàppal date assemblée nationale ndax amul sañ-sañ wi ay kàddoom ci le quotidien député ba woon di Moustapha Diakhaté xamle ne njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye dafa jalgati constitution bi yéen a bi di mi jëm ci tastasar lii di au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique et social et environnemental ana naka la ci Benno nar a doxalee yéen a las ne Benno googule fippu nañu ay députéem ci assemblée nationale jaay doole moo am ci doxalin gi yéen a bi di critique xëy dalal Bougane Gueye Dany mi xëy dal ci nguurug Bassirou Diomaye Faye gis na ci pagaay lañ ne xamagul soxlay askan wi te jógagul ngir saafara ko Bougane Gueye Dany gis ne neenal lii conseil des collectivités territoriales ak conseil économique et social et environnemental lu jàmp ci waxtu wi le am na feneen fu askan wi di xaare nguur gi fi ne Bougane Gueye Dany ne umpale wu ñu tey ne réew mi dafa sëngéem ndax ni géej ngi sànk ndaw ñi accident yi bari fi lool ñàkkum kaaraange ne xas ci réew mi Lamine Massaly njiital UNR gis ne république bu Sénégal gaañ nañ ko salfaañe nañ ko ay kàddoom ci source a Thierno Alassane Sall am jaaxle lool ci li xew ci dossier ONAS ba ba léegi kilifay jiite réew mi nangawuñ ci àddu te ñëpp xam nañ ne jaru ngi ñu denk wàllu hydraulique ak assainissement di Cheikh Tidiane Dièye indeegul lu leer ca lañ koy tuumaal Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp gis ne tey nguur gi fi ne xamul waree fam ci réew moo xamante ne koom-koom gi nasax na kaaraange amatul te lii di fleuve Sénégal ndox ma fa ne tàmbale naa uppi ba tàmbale bàll wu tali dëkkuwaay coal gerne xas ca ONAS ay kàddoom ci ci tribune Bougane Gueye Dany gis ne pagaaya fi ne ne xel mun naa nangu ci ñu tas lii di au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique et social xel mun naa nangu ñu mun caa yaxanal lu toll ci fukki milliards ak juróom waaye ba fii premier ministre Ousmane Sonko kenn xamagul moomeelam ci ñaata la toll maanaam defagul déclaration de patrimoine Bougane Gueye ne ana fan la fukki milliards ak juróom-ñaar yu ñu duppee fonds politique et spéciaux fu mu féete jëna kaabi di tribune ne pression ci ñeent fukki laam-laame ci yoon nguurug Sénégal yéenekaay bi di l'info xëy duñu jàngatal au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique et social et mi nguur bees bi jàpp ne dañ leen fi war a jëlee yéenekaay bi gis ne ñaari kuréel yi le mooy kenn bugul maanaam ñu bari ci askan wi jotuñu ko safo dañoo gis ne yàqum koppar la njëriñam taxu ko demee noonu yéenekaay bi di la Soleil ne nees mun a def ba mun a saytu ndox mi ñuy naan ci anam yu mu ayib doon lu ñor lool nguurug Bassirou Diomaye Faye premier ministre yoo xamante ne ndoxum naan te mun a jotee fépp ci réew mi premier ministre Ousmane Sonko di leeral ne financement ba maanaam koppar yañ cay dugal toll na ci junni milliards yu toftal juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak juróom a mun a dem Air Sénégal demeetu ni jafe-jafe tar lay jànkonteel ci jamono ji tax 24 xam ndax El Malick Ndiaye jawriñ gi ñu dénk wàllu transport dina mun a sowe Air Sénégal am déet Walf Quotidien di ñu xibaar ne Mimi Touré am na ndombol tànk enquêtal ci téléphone yi ne bari na tey askan wi ko seen ma nga sëgg ci téléphone am géne cabinet enquête gis ne yile téléphone tax nañu waxtaan amatul xamante amatul diisoo amatul ci diggante askan wi ndax koo gis talul lenn lu dul sëgg ca téléphone am abi mbay di psychologue xam le ne li ni mel tàmbale naa sànk ñu bëree bëri rawatina tout tànk yi géne cabinet vox populi bëgg a xam anañu sànk Aziz Dabala ak jege ñaaleem di Waly Ganno vox populi ne juróom-benn doomu aadama yañ ci jot a teg loxo jot nañ leen jot naa janook ñoom waaye am nañu retour de parquet géne cabinet ci bile procureur ubbi na ci information judiciaire ngir gën a yaatal mbir yi vox populi ne ci jamono joo xamante ne askan wi seen rongoñ feragul ci musiba gi am yàggul ca Pikine Technopole jëm ci faatub Aziz Dabala ak jege ñaaleem yéen cabinet am na ñetti ñu bees yu ñuy jot a faat ci anam yu méttee métti bokk na ci ab taximaan ba lu fete ko faat ca Grand Yoff am leneen lu xew te doy waar lool ca Bargny jëm ci xale bu jigéen bi di Aïcha Ndong tollu ci fukki at ak juróom police teg na ko loxo ci jamono ji bu dee ca yëmbal benn baraag lu yéeme am fa nijaaya fa jàmpaaka jarbaatam ba mu mujjee faatu tax yéen a kaabit vox populi ne ci diir gu gàtt deret gu bëree bari tuuru na ci réew mi ay bakkan yu bëree bëri rot nañu askan wi jaaxle lool ne ci tiitaange seen bakkan ne ci xottu gerte bakkan ne ci xottu